ah réew mi dafa laaj comme àdduna tey dafa jaxasoo boo xoolee tey li senegaal Sénégal yëpp daanaka jàmm amu fa ah, boolu boo dem ci élection yu mel noonu da ngay sooraale jàmmu Sénégal nga ne jàmmu Sénégal fan la ñu gën a am yaakaar ne bu ñu amee majorité foofee lay ame majorité buy indi xuloo ak xeex kenn ñaanu ko yàlla moo tax majorité bi am solo tey ci Sénégal mooy majorité bi tax réew mi gën a am jàmm réew mi nekk ci jàmm nit ñi joxante ay loxo nekk benn ndax ñun ñëpp a bokk loolu nag boo ko bëggee def gis li nga xam ne ñu ko fi def di ko tabaxe Sénégal pour mu jëm kanam te mu ngi jëm kanam ah da ngay jàppale ku fi yàlla teg jox ko lenge muy président Macky Sall président la République comme nguur yàllaa koy joxe. jox na ko ko mu ngi liggéey xeexul benn diine mu ngi jàppale diine yëpp di jàppale askan wi ci li nga xam ne suñ koom-koom foofu la toll ah kooku dañ ko war a jàppale